conseil interministériel bi daje woon tey ci mbiru nu ñuy waajale tabaski gi dogal yi yore kaaraange biir réew mi mu dogal jox dogal gouverneur région yi pour que lépp liñ dogaloon ci CRD yi mu jëm ci tabaski gi mooy fi ni denc ak xar yeeg yooyu ñu fexe ba loolu Euh, euh, matt ba pare la fa war a nekk lépp ci lu nuy soxla mu nekk fa mu ne tëm ministre bi yore kaaraange biir réew mi mu lënkaloo ak ministre mi yore yoon ñu fexe ba képp koo xam ne ne jàpp nañ la nga càcc jur daan yan la war a teg ñu daan la ko premier ministre jox na dogal ministre bi yore mbay mi ak càmm gi mu ànd ak ministre bi yore mbiru jëflanteeg bitim réew ak euh, Afrique ak euh, bitim réew ñu waxtaan ak waa Mali ak waa Mauritanie seen njiit yi pour ñu fexe xar yan fa daan jëlee di ko indi ci réew mi ak euh, waa Gambie jur gi aw biir Gambie pour dem boori sud bi ci boori Casamance ak yooyu ñu fexe ba yombalal loolu. premier ministre jox na dogal ministre des finances du budget mu ànd ceeg ministre bi yore kaaraangey biir réew mi ak ministre bi nga xam ne ne moo yore lépp lu jëm ci urbanisme ak euh, collectivité territoriale yi ak euh, lépp lu jëm ci biir euh, gox-goxaan yi ñu fexe ba li ñu tegg ci taxi yi ci juuti yi mu jëm ci xar yi yi dugg Sénégal mu jëm ci xar yi aw ci yoon yi mu jëm tam ci fi ni teeral ak fan leen di jaayee ñu fexe ba loolu ñu ci teg gi muy ne kenn waru cee jël taxe ñu fexe ba loolu nekk lu lu am premier ministre jox na ndogal ministre des infrastructures transport terrestre aérien mu ànd ceeg ministre industrie ak commerce ak ministre mi yor mbay geeg càmm gi ñu fexe ba transporteurs yi ak ñi ko séq ñëpp liñ juboo ci nu ñuy ak ñaata la ñu fexe ba loolu lépp ñu respecté ko pour bañ nekk njëg yoo xam ne ne dañ koy yëkkati jox na ndogal itam ministre industrie ak commerce mu waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy jaay euh, nu mu tudd li jur gi di lekk ñu fexe ba yombal ko nit ñi fexe ba mu yóbbu ay stock yu doy ci fi ñuy jaayee fexe tam jur gi nga xam ne ne ñu ngi ci àll bi di ñëw wut si dëkk yi ñu fexe tam ñoom i tamit ñu am aliment de betay bu doy euh, premier ministre tam wax na ko ne euh, lépp lu jëm ci moom ministre industrie commerce li nga xam ne ne ànd naag tabaski diggante soble dëwlin pomme de terre ñu fexé ba loolu tam mu bañ manké mu jël tam matukaay yi wara jël pour que spéculation bi mooy ñeug yi ni yëkkati te teguñu ko fenn loolu tam mu dak lu jëm ci point de vente yi nan lan koy défaré ak fexé ba mu euh, mën fonctionner bu baax premier ministre jox na ndigal ministre bi yoré cham gi ak euh, euh, agriculture mu and ko ki yore kaaraange bi réew mi ministre urbanisme ministre hydraulique ak assainissement ministre énergie ñu and teeg ci ak maire yi fexe ba lii may lim mu ne fexé ba point de vente yi yi nga xamné dañ ko autorisé ñu défar ko ba mu baax fexé ba courant bañ a manqué ci point de vente fexé ba camion citerne yu doy yu yor ndox nekk fa fexe tam ba jox leen ay tente yu doy fexe tam def fa ay douche ba pare tam ñu koy toppatoo fexe ba bërëb yooyu ñu fexe lépp loo xam ne ni daf koy gàllankoor ñu dindi ko fa ak lépp luy nettoyer ko avant euh, durant ak bu yëf yi weesoo ñu fexe tam mbalit mi ñu koy ramasser euh, ni mu waree bu Tabaski jàllee Euh, premier ministre digel na ministre santé ak action sociale mu fexe ba euh, ci wàttu point de vente yi ñu def ay point sanitaire moy fo xam ne ne képp ku soxla médecin wala infirmier infirmiers ko fa mën fekk mu fexe tam ba euh, yónnee ay nit ñoo xam ne ne danañ wax ak ñafa ne di lépp lu jëm ci seen yaram ak yaramu ña fay ñëw premier ministre jox na dogal ministre urbanisme collectivité territoriale aménagement territoire mu lënkaloo koog ministre bi yore kaaraange biir réew mi ñu fexe ba entreprise bi yi nga xam ne ñooy mbalit mi muy ak direction bi yore cadre de vie lum gën a gaawee parkingu stade Léopold Sédar Senghor lépp lu fay gàllankoor mbir yi ñu dindi ko fa ñu fexe itam tunnel bi nga xam ne ne moo nekk ci watu foiraayu jur gi nekk watu soti baatam tineel boobu ñu nettoyé ko li jëm ci financement yi premier ministre wax na ministre des finances et du budget mu jël matukaay yi war pour que subvention yi nu joxe pour aliment de bétail yi te ñu war ko jébbal ministre de l' agriculture ñu fexe ba subvention yooyu xaalis boobu ñu dajale ko jox ko ko lu mu gën a gaawee premier ministre le ministre des finances ak budget mu andakok ministre bi yor mbiru mbay meng jur ñu seq waxtaan ak banque agricole LBA ak DRFJ ak fonds d'appui Fonds STAP, ak institution de microfinance ñu leen di wax mutuel yi ñu il ba dossier yan fa déposé pour laaj pour lep ci tabaski gi ñu fexé ba gaaw koo xool ba jox tontu ak jox euh, ñu war a jox ñu jox leen leen di lebal waaye itam ñu fexe li ñooñu ma tudd muy banque yeeg microfinance li ñuy jooytu muy mbiru ñàkk a fay gi bor ya nga xam ne ne fayuñu ko ñu fexe ba seet nu ni càmbare yëfi xam lu ko waral ak jàppale leen ci ñu jot ci fexe itam fonds de refinancement yi nga xam ne ne état bee ko yor lim wara jox institution financière yi mu jox leen ko monsieur le premier ministre am jox na dogal ministre bi yore mbiru càmm gi mu fexé ba waxtaan pour que dëwan incha allahu lepp lu jëm ci opération tebeski ñu man leen ko lebal ci lu ëpp at ñu waxtaan ci ak banque ak institution financière yi lan moko mëna yombal ñu jéxalé ci li nga xamné ne moy li ci sun kanam ak euh, lii ñu fi dogal nun koy euh, càmbare premier ministre wax na ministre bi yore mbay mi ak càmm gi mu fexe ba waxtaan ak acteuru jur gi yépp pour que dëwën incha allahu tabaski mille vingt cinq lépp lu jëm ci xar liñ fi daan indi ñu yokk ko lool li ci Sénégal mën a joxe nga xam ne di ko jéggaani ñu yokk ko yokk bu euh, bu lool lool lool Wakhanoko mwami tamit, mwami yore mbaymi ak chanmegi, mw fekhebe lep li nga khamneni minge wan chikot pastoral bi, nga khamneni lwa la. Waye dekre d'aplikasyon yi djelou nyo koloum gena gave dekre d'aplikasyon yoyou, nyo fekhebe genne ko. Ta, bon kwaye deptem nyo baye chel ki lep lo khamneni, man fekhebe samba bo yi satchi djurgi. gis ca seen bopp mooy daan yeen leen di daan mu wax ministre bi ba ba tey moom mi yore euh, agriculture ak euh, mbay meek euh, sàmm gi mu lënkaloog ministre de l'économie et du plan nga xam ne ni moom moo jiite ANSD pour que recensement bi ñu defoon ci jur gi surtout jur gi nga xam ne day sàmm ñu fexe ba xoolaat ko ba mu indi li nga xam ne ne mooy dëgg-dëgg ni nu toll mu jeexalee nag euh, wax ministre secrétaire général mii muy man mi ak ministre de l'agriculture ñu fexe rek lépp luñ fi wax fii ñu topp ko ba pare di ko ci wax fu ci lu ne fum ci toll wasalaam